asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yi seen Senfootball TV nuyu naa leen bu baax jeex leen vidéo bi leen ñi ko moom nag mooy euh, boutiquier yi xam nga donc euh, marchand ambulant yi xam euh, ñi nekk ay koloba ñi may dajeeg si mbedd mi tout le temps parce que bu ma dajeeg ñoom rek ah, la moo mais ma la woon rek dinaa ko andiwaat incha dinaa ko dinaa andiwaat découverte booy yu bees yi donc loolu maa ngi ci coupe du monde bi laa doon xaar mu jàll maintenant dina si ñëw bu baax baax vidéo bi nag ñooñu ñoo ko moom la pourquoi moo tax dama def benn vidéo sur Sidi am vie yu bëri donc dina wax nak no leen ma mën aider surtout ñi ñi nekk si diaspora bi benen dossier bu xamantene ne euh, temps yi mom la ma gëna solo muy Nuhun Silla benn booy boo xamante ne defoon naa découvrir si moom yàgg na ñu tuddé ko le nouveau euh, Mbappé man nak ma lenn rek motax ma def ci mom vidéo fan yii nii euh, man xam bu mu bu damay ciblé ay 30 jours voire 20 jours yu xam ne dama football trop ñu xamantene ay business no lañ damay xol Sénégal bu jouer compétition manam Coupe d'Afrique xam nga donc wala sax Coupe du Monde bi ni wala ay match éliminatoire damay xol ndax Sénégal bu amé nam ndax ñoom dinañ réagir wane seen seen Sénégal bi nekk ci ñoom xam nga donc parce que ñoom ay sénégalais lañ d'origine ou bien dañuy téye seen bopp boo téye sa bopp rek man damay teel damay teel si yow maanaam du euh, ma sawar def ci yow vidéo je veux dire par là maanaam tey jii lu tax booy bi ma sawar def ci moom vidéo Nouhoun Sylla ak Baba Diop bi passé Sénégal bu mu gagné contre seen bopp xam fësal que carrément ne ay sénégalais lañ def ko euh, ko contre Qatar donc euh, ba pare encouragé Sénégal bi ko Angleterre dóor ça veut dire que seen côté Sénégal et que Sénégal léegi booy bu njëkkoon c' était plus difficile pour ñoom mais vu que Sadio dem na ba jël deuxième au Ballon d'Or mondial ça veut dire choisir Sénégal wala choisir Afrique teewul mën nga am ay résultats yu extraordinaire ay Maroc mu ngi nekk di ko wane nii di def exploit ça ça veut pas dire que da dem Maroc rek sa voilà xam sa carrière dafay jaare yaaxu wala mënoo def yenn exploit c' est bien possible euh, boo choisir Sénégal donc vidéo bi de ñooñu ñoo ko moom mbokk yi laataa nag damay jaar si euh, benn benn stage bi xam waxoon naa ne ko bi passé mu war a am tubaab jàll du 24 au 31 décembre xam donc ben, ben stage bu 65 000 euh, francs ngay pour 8 jours dañ lay jox loisir dañuy def comme projet yi nga def boo yeewoo ndékki añ dem cukki cukki dawal bal bi ay match ak euh, ak waa Banjul xam nga waa benn délégation Banjul moo war a ñëw xam nga ñu bëri sax macha et que euh, lii bi ma leen wax c'est important le numéro c'est 77 403 77 04 wala 77. 040 34 64 yéen a ngi gis euh, yi moo nekk euh, ay xale ngeen sonal leen seen papa yi ñu yóbbu leen fii ñi nga xamante ne yéen ay parents yi man Mouhamed maa leen wax ne man ngeen fa dem parce que man bi ma nekkee xale franchement euh, du question mais football bi c'est àddina xam donc ay éducateurs yu xamante ne macha allah ñu ñu ñu la mën a jàngal discipline lañ donc boo leen mën a jàpp dem foofu dina baax trop mbokk yi dañu ñëw wax pour 2026 képp ku ne bii national amul njëriñ da xool waa Maroc wala da nga xool d'Afrique bi bu ñu ko gagné donc bii national c'est très important ay Ismaël Jakobs ak keneen ak keneen léegi nag man dafa am benn question bu xamante ne defal ci ci ci commentaire yi wala ñu xamante ne ma ko conseillé conseil sax la gën a doon dama koy jéem a nag parce que ñu bëri dañ ne ma Mohamed bul defati vidéo rek bàyyi noonu boo defatee petite catégorie yëpp man ak moom ñuy waxtaan di joko di génnante ay jours di ko dem proposer euh entraîneur après nak choix bi si ñoom la des Demba Bay bokk na ci entraîneur yi tax ma gën sawar manam ki yor U23 donc dina ji ma gis les U17 les U20 jours bu ma xamante rek ma fexé ba voilà xam nga donc proposer leen parce que lolu yéen ma ko conseillé te incha allah bëgg naa ko def muy benn ñaarël bi ñu bëri dañ na man Mouhamed propos ak Aliou Cissé li mu waxoon Cissé xam nga dañu def dama jàkkaarloo mom conférence presse mu ne moom Mouhamed man duma ma daw si ginnaaw kenn loolu foog mu leer xam fokk mu leer duma daw si naa kenn ma ne ko nag leen waa diaspora bi yéen a ma mën dimbali Aliou Cissé ne pare pour daw si ginnaaw kenn man leen laa bëgg en 2023 bii nii nii nii dëkk boo leen mën a nekk Espagne Italie France yéen envoyé leen invitation loolu rek laa laa soxla si yéen boo leen ma envoyé invitation jour boo leen bëgg gis équipe nationale du Sénégal man non seulement dinaa leen waxtaan ak jour boobu def ak moom interview waxtaan ak seen entourage ba convaincre leen ne Sénégal c'est le bon choix vu que nag suñu dirigeant yi parfois duñu def bëgguñu def effort boobu noonu xam nga man il suffisait que mu effort boobu pare naa pour def ko franchement et que du ma si xaar les moyens de fédération sénégalaise de football mën naa dem jéem a dem ak sama moyen mais naa am invitation rek xam nga ma dem gisante ak joueurs yi non seulement am ak ñoom ñoom interview mooy joueurs nekk équipe nationale du Sénégal booy ci kaw loolu sax loolu day andi li mu leen wax souvent Instagram day leen abonné Instagram xam tax mu am solo. man boo yi ngeen Pape Gueye waxtaan naa fa moom Sofiane Diop waxtaan naa fa moom euh, ak kan yenn joueurs Iliman Ndiaye waxtaan mais mais yenn saa duñ la xam booy yi moom dañ waxtaan ak yow man booy dama leen wax ak ñoom pour pour convaincre moo tax ñi ko defagul Instagram seen football TV dem len fa parce que fa laay waxtaan ak joueurs yi euh, te te voilà il faut ngeen gën ma dolé bu ko defee bu ma ñëwé ma crédible touti parfois joueurs yi pour won leen ne man maay kan damay obligé né len dem len YouTube xool leen à peu près liggéey ñu na ah ok yow moom wax wax deug yalla man nañu partager ak yow souvent dañu naan do bëgg Sénégal duñ jeex donc man nak en 2023 2024 li mu bëgg gars yi franchement muy ñoom Nourou Sylla ñi ñoom Baba Diop bëggatuma toog fii sama confort fii di wax xam nga donc dama bëgg def la déplacement fekk leen dëkk yooyu noonu naa am invitation rek si gars yi Espagne feneen ak feneen wala mbokk yi surtout parce booy bu ma def vidéo jàpp leen ne dafa ma vidéo rek dem sama yoon de seeni famille dañuy ñëw contacter ma. ne ma waaye ngir yalla gën ci def parce que boy bi suñu mbokk la quoi parent expliqué ma affaire yu xamantene man voilà loolu motax may gën a incité te comme dama nekk ci logique bu préparé projeté wu déjà si coupe du monde 2026 ma japp né inshallah war nañu mëna qualifier joueurs yi légui la ci travail qui 15 ans là ça veut dire que en en en en qui euh en en 2026 aura 19 ans. Baba a 17 ans la Real Madrid Il tegaat si 4 ans après voilà de, de, war na jouer donc c'est des dossiers yu xamante ne léegi nga maintenant convaincre boy, mu ku am 15 ans mu war a 17 c'est compliqué mais nak, man pour man la plupart du temps nous entraîneurs, nous suñuy nous yi duñu mës dem contact parce que dañu naan ah Barcelone nouveau Mbappé waaye kii bul xalaat mu mu Sénégal alors que tel n'est pas le cas yow loolu dara leeru la si yow tàntal sa sens rek et que comme football bi changé na am nañu stade bu baax am na suñu équipe bi dem voilà am lumière propre ak des Sadio Mané yu fi fële keneen ak keneen donc euh, c'est maintenant au sommet pour fédération sénégalaise de football aux genre boy en tout cas c'est un jour bu xamante ne du man maa ko le nouveau Mbappé c'est un gars boo xamante latéral la woon mën a dribbler mën a teggi mën a gars yi ne dans le, la kii buñ ko bu bàyyul

wax naa ko cinq ans en arrière wala quatre ans en arrière muy Jacobs xam muy paab Gueye muy Abdou Diallo xam nga donc muy joueurs yi nekk équipe nationale du Sénégal yëpp bi may wax si ñoom wax naa si ñoom ay at ci ginnaaw avant que ñuy ñëw équipe nationale du Sénégal pour bi xam ne bii nationaux wax si bii nationaux teewul fii Sénégal xam donc loolu moom foog mu leer te gars yi man ma wax bu fekkoon euh, intérêt dëgg wala xaalis dëgg boo ko mën a am ñii nekk Sénégal gi ñoo la ko mën a def maanaam ñoom seexu exploité ñom ñooñu ñi xam fi lañ juddoo parce que mën nga dem seen kër mais man néwuma ci logique bobu man benn logique la nek nañu dolal équipe bi gagné ay coupe d'Afrique dañu wara dabu euh, suñu yenen morom yi nek fi Afrique donc euh, coupe d'Afrique bi di ñëw ni day metti dina tang dina jët ay wa comme nima ko waxé rek moy que euh, franchement ku xol Maroc nu mu nu mu ay business no di ci am dem ba def exploit bu bu Afrique masul def bu ben nation africaine bu masul def dem demi-finale donc à savoir que ça même Maroc bi moy premier équipe africaine bu dem e de finale en coupe du monde ci histoire bi xam donc après la ñom Cameroun ñëw ak yeneen équipe yi comme ni nga xamé histoire bi euh, maintenant euh, Jean Yves bi li tax ma si gëna insister tey jii boo jëlee wa Algérie par exemple xam nga waa Algérie wo nañu 19 bii nous yoo xam ay booy lañ ñi nekk Lille ñi nekk Marseille ñi nekk Angers Brest Montpellier Olympique Lyonnais 19 jours euh, ñu am ci benn stratégie bu leer nga gën wa Cameroun.

jour fu mu nekk dinaa ko loxati muy Lituanie ak feneen ak feneen donc pour dire que ne ñëpp am nañu stratégie man nag équipe nationale du Sénégal wala fédération sénégalaise de football xamaguma lan mooy seen stratégie moo tax mënatuma toog maa ngi travailler ak benn waay bu nekk France bu xamante ne voilà jour yu bëri la xam man damay def recherche moom lay def recherche léegi moom yor na contact yu yu yu U20 yi UDC euh, man maa yor Aliou Cissé bi ñeneen ak contact yi pour ñu ñu bu ñu jëratee joueur bu ñu ko def xamalee ba pare nii si si réseau yi dañuy jël dossier bi ñu dem euh, bu fekkee booy bi 15 ans la am 16 ans comme ni hun ñu dem euh, coach U17 yi nekk jébbal ko dossier bi xool ndax dina bouger bu fekkee euh, u ñu def noonu bu fekkee U23 ñu def noonu parce que Sénégal moo ñu juddoo fii ak ñu juddoo fële donc loolu moom incha allah dinaa si nekk bu baax a baax a baax beneen mbir boo xamante bëgg naa ko vu que Aliou Cissé nee bëggul daw ci ay ma leen abonner sama compte Instagram parce que boleh ni abonner sama sama compte Instagram ni macam apa leh? Oh, Odi biman mi, dah mula wahak babi, dah mula wahak Sofian Job. dam wax naa fa kii euh, Sofiane Diop ilman Iliman affaire mais da ngay gis ni jour yooyu après dañuy am notoriété sen ñi leen ñi leen sur Instagram day gëna bëri donc message day bëri mën nañu bañ a gis sama message du coup bu mu leen message duñ ko gis mais yeen yeen a moom mën jox crédibilité moy lan moy ko tay ji bu mu né di wax ak jour jour bi li mu njëkk a xool mooy samay abonné xam bu xoolee samay abonné mu tout rek dina ah ki sa crédible mo ramal souvent commencé waxal tak rek dama lay vocal né la gawal dama YouTube nga xam lim lay expliquer à peu près après bo xolé YouTube li fa nek di nga ñëwaat si man évidemment yow voilà ku crédible mais maintenant nag nag yéen samay internet li jàppale leen ma accompagner fofu dolel dolel ma bu baax sur Instagram bu ko defee joueurs aussi tamit buñu gissé sama abonné voilà kii moy Mouhamed li moko ko tax donc loolu bo moy ben benn deuxièmement bi xamantene ne bëgg naa en 2023 2024 ba si 2025 moy que képp ku xamantene man mën na ma aider ci ay invitation xam nga donc séjour France la Espagne la Angleterre feneen ak feneen man bu ma semaine sax wala 15 jours baax na gis nga 15 jours yooyu dinaa si fexe jours yi ñu may wax ne ay crack la ñoo mën football. fubal ma def la déplacement. dem waxtaan ak seeni i waxtaan ak la joueur aussi tamit profité aussi tamit def ak interview joueurs yu mag yu Sénégal maanaam mën naa gis benn Kouyaté a ne kenn waxtaanul ak ñoom parce man nag dinaa jéem déposer loolu loolu nag bu antuwul euh, deuxième option bi mooy li leen wax nii donc bu képp ku ma mën a rek maa ngi nii man seetal ma séjour ma ñëw ngeen gis liggéey bi non seulement mu avancé et ñu xam ne képp ku aidé Sénégal ci loolu rek sa bopp nga aidé parce que man dama nekk logique wu projet euh, euh, si si si si coupe du monde 2026 dama damay ñaan nag ne Sadio Mané un bon jour dina fa jógee yàlla na yéex dina fa jógee si si terrain dina bàyyi carrière pour nii bañ ko jëlee beneen côté xam nga ñoom Gana Gueye ñoom Cheikh Kouyaté ay kii lañ maintenant nag am nañ génération bu baax boo xoolee fii euh, Sénégal ñëpp ñoo ngi fii ñëw di seet ay partenariat am na partenariat euh, ay Daaru Salaam y' a de centres yoo xam ne gars yi ñu ngi ñëw fi di di liggéey ñoom ay Dakar Sacré-Cœur Olympique Lyonnais ça veut dire euh, boo boo jëlee foofu ay joueurs nga boole ak ñi juddoo fële rek nga ménager da am équipe bu baax euh, yeneen gis Maroc ay prestations coupe du gis nga fii même équipe européenne yi sax dañoo wu léegi da xool naa équipe bu kii comment dire Allemagne la plupart duñu sax ay Allemagne 100 pour ñii dañuy am xeet bi ñii nekk xeet bi ku nekk fu nekk ngay jógee te Allemagne dañuy dem jël joueurs yooyu andi leen seen seen seen seen ñun bu fekkee Allemagne moo koy def euh, France di ko def keneen ak keneen ñun war nañ ko mën a def donc c'est un et voilà donc Ndoxalin Sylla bii nii lii laa leen si mënoon wax c'est un joueur boo man comme ni ma ko waxee. maa ngi gëm ne bel bien comme ni ma ko bindee si titre bi gëm naa mu Sénégal ci kaw ñu def si euh, fédération def si liggéey bu am solo maanaam def le voyage dem Espagne wax ak moom dinañ bëgg ñëw Sénégal mais ñu ñëpp dañ ne maa équipe A booy ba ñu ñëw Sénégal de Babou keneen ak keneen mais koo su wax rek danaa équipe A léegi yow mii da ngay jéem a honnête ak moom da nga naan booy équipe A nga bëgg di waaye jamono bi pare ko pour équipe A booy mais boo ne leen U17 U20 ñu commencé hésiter maintenant nag euh, bu fekkee convaincre dëgg pour man waa fédération sénégalaise de football ak ñi fa nekk ak Augustin ak wala sax El Hadj Diouf xam waroon na nekk benn ambassadeur dem jëli joueurs yi pour convaincre c'est plus facile que Mouhamed man mi ma ma ma kii leen quoi xam nga donc ma fexe ba ñu ñëw man dinaa jéem a wax ak ñoom si Sénégal ak yooyu mais après day dif si liste des nag pour man ay El Hadj Diouf fédération sénégalaise si war a gën a taxaw mbokk yi li mu nekkoon vidéo bi si euh, commentaire wax leen seen xalaat ak seen gis-gis ma leen di jaajëfal di wax ba beneen sur seen football TV.